الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوسي تي في جسان فيدوبي الله الله الله الله الله صارما واسنى الغواني واعتضل ذكر الأغاني صارما واسنى الغواني asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara bu baax ku nekk sa tur ak sant leen wàcc seen wàccuwaay euh, ñu ngi ci boutique Melo Pay bi euh, Melo Pay bi nag buñ ko waxee euh, kenn ku nekk dana xam Melo Pay bi mooy lan ci taalibe Baay Melo Pay bi mi ngi nekk fii ci Dakar ci en face pharmacie Bourguiba bi ci côté Castor bépp taale boo xamante ne nii soxla na lu jëm ci wàllu pay bi bu ñëwee rek dana ko fekk incha allah melu pay bi ñu ngi yëngu ci domaine yu bëri ñu ngi yëngu ci mbaxana xawsa yi képp koo xamante ne taalibe la nekk ci dëkk bi te soxla mbaxana xawsa mbaxana nigérien yi rek bu ñëwee fii dana ko fekk incha allah mbaxana xawsa yi mi ngi nii qualité bu mu ci bëgg rek am na qualité yi dix mille la commencé jëm ko ba soixante dix daal pay bi tamit mu ngi fi daal Cheikh Mahi Cissé yi ak euh, yeneen façon dàll yi même mbarakis yi aussi tamit ñu ngi fi disponible euh, même mbaxana baaba lamin yi aussi tamit mbaxana marocain yi mi ngi fi disponible kurus yi aussi tamit kurus façon kurus boo leen bëgg rek bu ngeen ñëwee di ngeen ko fi fekk incha allah parfum oud yi aussi tamit mi ngi nii euh, parfum oud yu neex macha allah yoo xamante ni ci melo pay bi rek nga koy fekk waaw jàllaaba yi tamit mi ngi nii jàllaaba marocain yi am na ay transparent am na yoo xamante ni coton la am na yoo xamante ni nylon lay doon am na aussi trois pièces yu marocain yi yoo xamante ni yu rafet original yoo xamante ni bu ngeen ñëwee fii rek di ngeen ko am ci ni mu gën a xéwalee incha allah euh, même loolu tamit manteau transparent yi mi ngi fi jàppandi mi ngi nële ci kaw manteau velours yi comme bi ma sol nii yii yëpp mi ngi fi jàppandi bépp taalibe boo xamante ni soxla na ko bu ñëwee fii ak dana fekk même ba xam ne Oustaz Barham Diop aussi tamit mi ngi disponible nii waaw ah, lépp loo xamante ni melukaanu taalibe la rek boo ñëwee fi melopee bi rek da nga ko fi am ci prix bu mu gën a yombee incha allah yéen ñi nga xamante ni yéenay laajte numéro bi numéro bi mi ngi nekk 78 018 17 71 képp ku ñu si contacter rek danañ jëflante gi ak yow incha allah. ci anaa bi mu gën a rafetee bu neexee yàlla ñu ngi leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax macha allah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa ayyuha nnaasu irji'u ilaa Kawlaxa Seydi Ousmane Niass woote gaay barama Zunurayni borom ñaari leeri moo ñu woo ci baay saxoo min kaasiri barama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 di ñoo ngi nuyu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi waat kontante bu baax tey di ñëw di teew fii nii ci Malika ci suñ sëriñ Oustaz Alioune Ndao lan mooy euh, solo suñ teewaay fi te mooy dañoo ñëw ngir waajal bés bu màgg muy yawma zikri wa shukri wa zikra nga xamee ni ñu ngi ci cinquième édition bi muy euh, ren gannaaw quatrième jour après gàmm gu mag gi fële ca Medina Baye ci buntu kër El Hadj bu Zeynabou Niass xamee ni ku koy teewee mooy Cheikh Abdou Malick eh, Ibnu Cheikh Ibrahim ak mbooleek njabootu Cheikh Ibrahim gi dan nag eh, nga xamee ni chaque année rek dañuy tànn ay parrains yu am solo dan ñu tànn suñu sëriñ nga xamee ni kenn doot ko présenté ci pays bi mooy Oustaz Aliou Ndao xam ne boo tuddee turam rek xol yëpp dañuy yëg ci yàlla boo tuddee turam xol dañuy foglu xam-xam boo tuddee turam xol yi dañuy yaakaar ndollal beneen yoon waaye nag euh, ñu kooku lañ tànn def ko pare ana lu tax ñu def ko pare mooy ndollal bi nga xamee ni wala mission bi nga xamee ni mu ngi koy doxee ci pays bi ndaxte sànq ni ko sëriñ bi waxee pays bi bëri na ay waxkat pays bi bëri na ay yetekat pays bëri na ay yarekat waaye moom bokk na ci yarekat yi nga xamee ni saa bu waxee rek foo mën a bokk rek da ngay gis sa sa sa sa sa sa bopp ci kàddoom yi parce que daf ko teg rek fi ko bàyyi doon teg yar nañu ci bi zahir charqi wa nuurul mubin te loolu rek ci la nekk mission Mawlana Cheikh Ibrahim boobu ak ni nga xamee ni mu ngi koy gindee taalibe yi tey nekk jàmbaar dèjà zawiya bii ñu nekk rek euh, fii ci Malika muy euh, zawiyatu zukri wa zikra donc euh, nekk zawiya bu mag ànd ak école boo xamee ni franco arabe la mu fi yar nit ñi di leen jàngal xam-xam di leen yar ci yoonu sofiyanke tamit ànd ak loolu it hors Dakar sax am na fi yeneen école waaye nag du guleet wala loolu du duut loo xamee ne kawteef la ndaxte moom defarab Cerno Asan Dem la te buñ tuddee buñ nee Cerno rek ku nekk dana xam fa nga xamee ni foofu la euh, tolloon ci Maolana Cheikh kon kàddu yi dañ koy jox suñu sëriñ Oustaz Alioune Ndao mu joxe kàddoom fuglu programme bi nga xamee ne ñu ngi koy waaj a def. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ayni rahmati rabbaniyati wa ala alihi xaq qadri muqdaarin azim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi ndokkeel suñu bopp nag ci gan yu mag yi yàlla may ñu tey ñu xam ne dañuy fàttalil xale asaabul kahfiya na leen alquran melalee woon innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnaahum hudan e, wa rabatna ala yu yëpp feeñ na ci ñoom ay xale lañ ci at gëm yàlla lool waxtu wu nekk lu yokk seen ngëm ci lañuy dox waaye du am xaraaba ndax am na olof day wax ne lu juddoo ci tàgg bu naawut jaaxali bokkam Seydi Ousmane mi nga xam ne moo nekk ci bopp délégation bi di doom ci pays bi waaye doom gi da ko suul di doxee taalibe di ko bëgg lu baax di ko am itte waxambaane yi mu ànd ak nga xam ne li ma wax ci moom mën naa ko sedd ci ñoom kon buñ nekkee suñ gan dama ne ñu ngi ndokkeel suñ bopp ndax du ku ne rek mën naa am gan yu màggee nii kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci daje bi di wax rek ne jataay bii nga xam ne ci lañ jëm mooy laylatu dikri wa sukri wa dikra ñetti morso la grand boobu la ak jiital ak tubéy dikri sukri dikra benn bu ne aw nit defaroon nañ ci am na ko jaar na ci zikru ba xëy bokk ci soppe yàlla yi am na ko jaar na ci sukkuru ba xëy bokk ci soppe yàlla yi am na ko ci buntab zikra ci la jaar tudd yàlla sant yàlla ba pare béye la njeexitu tudd yàlla loolu xam nga ne guddi googu dëgg-dëgg ku war na ko fuglu ba mbir dana foor ñu ñu defee ko ci barab mu gën koo foor léeg-léeg place dafay yokk garaat li nga xam ne place dafay yokkulu ay duma alquran li waxoon soxnaa yonent bi yaa nisa annabi lastunna ka ahadin min annisaay yéen soxna yi ne ci roon yonent nag benn soxna moo tax wax ne ku ci def dara safaan dañ koy ful ndax keppaar gee tax kon keppaar dana yokk teraanga mee keppaar dana yokki duma keppaar gi ñu koy defee tudd yàlla sant yàlla fàttaliku ñu koy defee Medina Baye kenn ci janti pii bi di ko jiite mooy Seydi Si Abdul Malik dëgg-dëgg jataay boobu ñu ngi koy fuglu di ci ombalem soppe yi du ñàkk koo xam ne siikar rek moo ko mën a booleeg pii yàlla bi du ñàkk koo xam ne moom sukkur rek ci la mën a demee am na koo dikra ci la may demee kon sëñ sëñ Ousmane ñetti morso la ñaw ku mën a sol garaam boobu mën a sol mbubu meeg tubaab ji kon benn bu nekk ko la pour aw nit kon nay la du zikri wa sukuri wa zikra ñu ngi ciy invité ñëpp di ñaan na yàlla ñetti maqaama yi benn bu nekk yàlla na ko yàlla feeñal ci mbooloo ma yàlla def tawfiix kon daal gërëm ñëpp di ci oo ñëpp nag bi sifaama tuddkatu yàlla yi waxtaankat yi e soppe Cheikh Ibrahima yi soppe Seydi Cheikh Ahmad Tidiane ñi ngi ci oo ñëpp ci na Baye la muy guddi gu màgg gu ñu fuglu di ñaan yàlla may ñu tawfiix ñu ngi leen gërëm di kontaan ci toogaale bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah alhamdulilah euh, comme niñ koy waxee rek euh, ni olof di wax euh, ne cin bu naree neex rek su baxee day xeeñ. lii rek lañ yaakaar ci moom ba tax ñu tuddee ko jotaay bi ndollal gi nga xamee ni fu ñu dajeeg moom rek dañuy dox ci yàlla dañuy yëgaat yàlla dañuy amaat yokkuteeg mahaba ci Maolana Cheikh Ibrahim lii bokk na ci li tax ñu tëddee ko programme bi waaye macha allah lii euh, euh, présentation la rek walla fuglu la rek ci jotaay bi ku bëgg a dégg lu dàq li ku bëgg a dégg lu gën a kawe li ku bëgg a dégg lu gën a neex li ñu lay jox rendez-vous incha allah euh, quatrième jour gannaaw gàmmu mag gi fële ca Medina Baye buntu kër El ci yow ma ñu ciy ànd ak waa loolu payam mënee si koo li ngeen di wër balaa feeñ ngeen dem fa baraamaaj wuy si woote yàlla loolu payam mënee si koo xayma.

nay liggéey fay du baay bis ci barxama ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy